fanweer fan yi mat sëkk si laa koy woore mel ni mbubb laay ndeg doole ju bari jot ci rek mbaa ma tëcc ba ngeen mën ana ngeen asalaamaaleykum. waaw. ah waaw waaw waaw. ndeysaan nii rek laa ko bëggee de. boobu day day faatu. bakkan jàmm la bëgg. bu ko mënee am nii laa ko bëggee. ah waaw. bakkan jàmm la bëgg. bu ko mënee am ah, da koy am sax. ah waaw waaye yéen gën naa leen a gis de. ah ah, ah fii la fii la fi kontaan na. ah waaw waaw ngeen def. gis nga de. ah waaw jàmm ak njëriñ xool sedd na. nangu naa leen trop. ah waaw nii rek ngeen def. maanaam dama loolu fële gis kër gi leer waaw ah, waaw ma xam ne am na lu ñëw ah, billaay wala taala lii lii yéen moom moom yéen nii rek waaw waaw waaw kontaan nañ ci yéen de ah, ah yéen daal waaw xaaral ma indi leen siège waaw waaw waaw waaw tooga eh, tooga rek tooga way indi la sa ñoom tonton siège parle non il suffit de ne se parle de pas il me sauve waaw allez ma seet bëggee toogal toogal ah jàpp naa la toogal yow kay yow kay yow kay bu yàlla defee jàmm bu fekkee dëgg rek nga bëgg a dégg. ñetti siis laa waaw ah, ah waaw. réewu ah, waaw ngeen nekk ci ah, waaw waaw xam nga baax na. lay def baax heure ñëw waxtu mu ay Moussa daa ma lay xaw xanaa xam ñun ay géwél wax la bu wër la ñu barke Cheikh yi waaw lii ngeen mujj def yéen. waaw gis nga de nan la ah, ñu. waaw kontaan naa ci yow. Ah. nekk ci activité yi rek. Ah, waaw kontaan ci yow baax a baax a baax. naa leen gën a billaahi wallaahi nekk ko fi waaye lépp a ngi teew suñu loxo bi. déplacement beeg dérangement beeg doy na woon. billaahi wallaahi nga ñoo ngi gis orange money yi. Mhm. orange yaa ngi ñëw de yegg si na de. Mhm. waaw ak seg mi ngi ñëw de allah wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal bu baax man barkalla man de benn opérateur jox ma waaye da en tout cas heure mu fi jaaree hmm. bañ ak bu leen fekku si kër gi sax yaakaar naa cinq mille bi mooy mooy jëppeel na ma day naaw gam la da koo tàmm loola lu la da koo aa junni baa ko tàmm naa ci yéen de bàyyi jàpp waaw ah. ah. ana ana ana seen nijaay mi ngi waaw waaw tey kay. waaw ma Masamba. ma Masamba Masamba. taxuraan nga ay <laughs> sa. maanaam baat bi tax léegi li tax baat ma la xandi. Ah. galaas gi mi naan la. moo tax daanaka contre temps rek lay way. moo tax ba tey baal galaas gi. kontaan <laughs> naa rek tey euh, def nag. alhamdulilah ah, kontaan nañ ci yéen de. ah, ah waa ni ngeen ko weer koor noonu la. waaw ko seeral waaw. di ko sellal di teen di di waxtaan. noonu la ñu tuggaaw. ay saa waay di. waaw waaw waaw waaw président rek laa la yéene de. waaw waaw président rek laa la yéene. dina ko doon de. waaw bi élection yi ñëwee naa dugg si koñ bi koñoo koñ ruqoo ruqoo. ñu wateel la. président laa la yéene dina ko doon de kontaan naa. boo gisee ma dawar sama moto ba ñëw ba ci yow. dama xam ne nit ki bu joxee rek te yàlla rek tax. ñam koy jox. mën na leen koy jox te kenn du ko yëg. dëgg la dëgg la moo tax ma bàyyi lépp ci bëccëgu koor gi. Mm-hmm. dawa sama tool ñëw ba fekk si la sa kër. Mm-hmm. yëkkati lii yàlla rek tax dëgg la ndax bu fekkee ne ñu ñaam li nu suñu borom jox. Mm-hmm. ñu ciy génne asaka. wala ñu ciy def leen. maanaam suñu borom dana ko génneloo asaka asaka génne woolu génne loo wuñ ko. pour ñu koy joxe ay dix mille franc ki wenn franc dañ ko génnloo pour ab lim boo xam ne ni kan ko jox moom bu déwénee suñu borom dina ko dénk loo xam ne ni mën na kaay génne asaka dama kontaan ci yéen ndeysaan ndeysaan ma nekkee fële ci kaw man ak soxna si leen di xalaat des sax leen di waxtaane quoi parce que yéen mun leen a ñàkk ci gox da di suqali gox vraiment kontaan naa daal moom ñi ngi koy gis mi ngi ñu koy envoyé de mi ngi ñëw de wax dëgg yàlla tarkal la namuñu dara ah, ah, xaalis mi ngi ñu koy yónnee de léeg-léeg sax dama fi romb ma xam ne xel ma nga <laughs> ma nga bitim réew mm-hmm. dama fi romb rek cinq bi mooy tëb miir bi ndax daga ci moom <laughs> sama biir poos bi ndax tàmm ah, gis nga Matar <laughs> uh-huh. dëgguma la ah. mais gis nga tubaab ah, la jor ba ne ko loo bokk tubaab bi dañoo xam lu wax ah. yàgg kon yàgg bawut dara dañoo yàgg nga yàgg ñoo defal yàgg ñoo teral baax ci loolu nag mm-hmm. lii dund gu lépp kii dafa baax moom mm-hmm. soxnaam si ak càmmiñ ak jigéenam bi mm-hmm. ñu baax lañ lu baax li na xam ne kon billaay wallaahi wa taala kontaan nañ ci yéen waaw loo ci xamul sax ma tegal ci leen maanaam xam nga ne bu moom dëgëru waaye yàgg joo ba muy joo moo dagg ma am nu ma defati rek ah, ah, ah, noonu la ñu génnee askan moo tax ma dawa sama oto fii bugguma nag ñaar ak sama loxo càmmoñ bi wallaay naa si wóoluwuma ko dama la koy jox rek te yàlla rek tax dëgg la sëñ yàlla rek tax waaye sëñ Massamba yow de da nga bay sa waar ci diine ndax yow de

waaw waaw. bii moom soxna Seye ma woo ko moo ne naa ñëw. waaw moom fu ma dee dafay xamee. loolu la sax nga ji sax isol la. loolu loolu loolu tubaab naa c'était comme poisson em dans l'eau. waaw. maanaam li jënd ko waaw waaw dañoo bëggante ndeysaan yàlla la yàlla fay nag yàlla nañu yàgg rek waaw li ma la wax daal mooy yàlla ànd bi yàgg waaw suñu borom bàyyi leen ba ci kanam mm-hmm. seen ànd bii dafa rafet mm-hmm. yéen ñëpp ngeen di ku baax ak seen jigéen bii moom kenn yaay bakkan yaay bakkan yaay bakkan dëggal yaay bakkan yaay bakkan yaay bakkan ñëwal koy kula ñaako doo toon ñand feep feep ah. feep ah. mani ko waaw ba tax na ma ni ko tax ci dafa génne fecc bu bees loolu la mu moo tax ci dafa génne fecc bu bees taxaw cax ndeysaan taxaw cax taxaw cax bokkaloo gaa yi nga xamante ni dañuy yor loola ak loola dem ba Sorano naan dañuy baat rek bokkook ñoo ñama sàmba am naa njortu ci ni ëllëg yow mal xayaam bu yàlla suñu borom di gëstu alal yi fu ñu ko def boobaa sa xel mar naa mën a dal bàcc jërëjëf jërëjëf ma sàmba te nu góor góorlu ci li tax suñu borom bindunu muy jaamu ko rek te bañ ko boole ak dara wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li doon moom rek a tax mu bind nu fonk julli juróom yi bu daray àdduna tax nu di leen sàggane nuy woor weeru koor te di ko dundal nu dëppuk sunnas Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nuy génne azaka ci alal ju ko mate aj màkk ci kum jàppandi te lu ñu ci mën a def ci jaamu yii yépp nu def ko ngir jëmmi sunu borom mi nu ko sant ndax bari waa na ku ciy def mbir du ca amee lu dul ab coono